bi may ñëw léegi dama am mbokk mu ma doon waxtaanal ma ne ko sëñ bi kat am na ci e, xasida yi boo xam ne bii wax na ci waxi ndox ndoxum tuubaa mi ñaan ci yàlla ni maa ngi lay ñaan nga yóbbul ma ndox mu dem tuubaa ndox muy wal ba yegg Touba mu ne ma kooku day Matlabul Fawzayni la ma ne kon nañu sant yàlla ngir bu ñu yàlla dimbalee xëy na ñaan yooyu sëriñ bi ñaanoon yàlla mën nañu ko yombalal ndax daanaka e, tàmbali nañu ko ndax alxames bii ñu génn ca Dakar la ñu signé accord yi njëkk ak société yi nga xam ne ñooy jëlee ji ndox mi foofa ca lac de indi ko dafa am boo xam ne mooy branche li ñu tuddee branche principale bi liggéey yu mag la nag ay autoroute lañ ko tuddee autoroute ndox maanaam tuyau yi ñu ciy def bu ci nit taxawee dana ci mën a taxaw ndax dana def 3 mètres jëm 4 mètres ci diamètre bi ndax yaatuwaay moo jëlee ndox mi foofu yóbbu ko ba dakaar Thiès ak Mbour ak foofu yëpp am ko waaye dañ ko tëggee noo xam ni bu ñëwee ba fii ci booru pekkees ci lañu koy defaat beneen yoon boo xam ne moom la ci ciy mu ñëw fii ci Touba boobu dina toll ci juróom benn fukki kilomètre ak juróom moom mooy ñëw fii ba yegg si Touba bu yegsee ba ci buntu Touba incha allah fii la ñuy def usines yi nga xam ne ñooy defaraat ndox mi togg ko segg ko defar ko ba muy ndox mu ñu mën a jëfandikoo maanaam usine de traitement ndox su ko defee Touba fi mu nekk réseau bi fi ndox mi di jaar mooy bokk na ci li gën a indi jafe-jafe ci dëkk bi ndax réseau bi dafa bëgg bëri ay dagg-daggee yoo xam ni moo tax ndox mi di siit ba forage yi fi nekk ko néew sax loo ci pompe rek dafay dafay dem foofu nag la ñuy tàmbalee fi mu ne bu ñu paree euh, yii ñuy def te dañu euh, wax entreprise yi koy liggéey fii ak juróom benni weer jëm juróom weer lépp luñ ciy def ci gëstu ak étude dana jeex moo tax ñu ngi koy natt fii ak mois de juin bi ñu jëm 2025 mu jeex waaye bu ñuy tàmbali di jóge ca Lac de fii ci Touba liggéeyam dafay tàmbali bu soobee yàlla dañ koy tàmbalee nag ci réseau bi réseau bi la ñu bëgg soppi ba mu jeex takk ñu def ko réseau bu bees taq bu moderne nag boo xam ne bii euh, lépp daal dafay bees méngoog jamono waaw gis nga fi ne sëñ bi la ñuy def dakaar ak ci dëkk yu mag yi ci ci ci tuyau ni mu dayoo bi technique bi ak lépp moom la ñu bëgg mu am fii bu soobee yàlla